اعتدال واحد اثنين ثلاث زك زك ندقر ندقر أو جلي الدافي ندقر ندقر أو جلي الدافي dellu bal kaddu yàlla jig na tay téere yàlla baa ngi nii alquran la moo fi gën lépp lu xam si diine ji yoon mu soobu ay jale déglu ma kàddu yàlla ji na tey téere la mu ëpp waajur bi dimbali sa doom déglu ma kàddu yàlla ji na tey téere yàlla القرآن présenté ñi nga xam ne ñoo fas yéene féetewoo liggéey bi sunu magom daara sëriñ Mouhamad Diop al imam ne fële cité moom moo ñuy coordonner liggéey bi di suñu jëwriñ moom moo féete sama loxo ndeyjoor sëñ Daara Omar Kane ñun ñëpp ñu xam ko ci liggéey bi di suñu jëwriñ moom mooy ànd ak ñun ci yu sew sewaan yeeg yu ruq-ruqaat yi nga xam ne liggéey bi lelee da koy laaj moom moo nekk sama càmmooy jëmm ju doye ji ak yéen sëriñu Fallou moom mooy ànd sama mbokk yu baax yële ca taabal ba di Cheikh Mouhamadul Fadal Ndiaye ak sëriñ Abdul Fattah ak sëriñ Salihu Mbacké ñoom ñooy ànd xale yi nga xam ne ñooy barkeelu ak ñi mokkal ci barab yi nga xam ne namm nañ koo jëflante ak ñoom ci kaw pujum bi kon incha allahu taala dañuy tàmbali rek su ko defee sëñ Fallou da ngeen may suivre bu baax a baax liggéey bi moom lu ñu ci tagaar rek danañ gën a tardé su ko defee ñu tàmbali liggéey bi jox sëriñ daara mu nuyoo ñu jox sunu jëwriñ cheikh Mouhamad Diop al imam mu nuyoo su ko defee ñu jox cheikh Mouhamadul Fadal mu nuyoo cheikh Abdoul Fatah mu nuyoo sëriñ Saalihu ñu nuyoo ci nuyoo yu gàtt su ko defee nag ñu tàmbal liggéey bi incha allah ñaan borom bi subhaanahu wa taala ci nii ñu ko tàmbalee ci ak dal ak teey ak fekkeek tal ñu àggalee ko ni ak dal ak fekke ak teew incha allah. salaamaaleykum wa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى يعملون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم إذا لأمسكتم لهم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا صدق الله العظيم jërëjëf soxna maam nag ci njàng mu am solo boobu yàlla yàlla barkeel alquran ji te mottali ko eh, ginnaaw aaudu billahi min alsheytaan alrajim bismillahi arrahmani arrahim تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من ولو شاء الله ما اقتتلوا soxna Zahra ci alquran daara ji dafa am ay góor ak jigéen waaye li ci gën a yéeme mooy bëri na daara yu bari bu ñu amee ay góor ak jigéen jigéen ñi moom dañ leen di féetale riwaayatu xafs waaye boo xoolee daara ji ci njàmbarteeg sëriñ taala ak ñi koy dimbale daña góor ñi riwaaya ba ñuy jàng jigéen ñi nañ ko jànge ma ñoom ñëpp nañ bokk jàng riwaayatu warsh an nafia kon Cheikh Baye Abdou Ndiaye moo toog noonu ñu bàyyi ko Cheikh Mahamadul Fadal bismillah baada audu billahi min alsheytan arrajim bismillahi arrahmani arrahim تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا بسم الله السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن

wan Abdou Ndiaye ci alquran ju set jooju yàlla na suñu borom barkeel alquran ji. ñu doon jàng sori na lool ci téere bi yàlla yàlla barkeel. ñu woo Serigne Djili Khoule Serigne Djili Khoule bisimilah. waaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu. Euh, Serigne Djili Khoule. ibda min qawlihi taala. baada audu billahi min alshaytaan arrajim bismillahi arrahmani arrahim. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Serigne Jiili Xulle ci njàng mu am solo moomu yal na suñu borom barkeel Serigne Cheikh Ndiaye ibda min qawlihi taala baada audu billahi min alsheytaan alrajim bismillahi arrahmani irrahim إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين بسم الله السلام عليكم ورحمة الله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 jërëjëf Serigne Cheikh Ndiaye ci njàng bu am solo boobu euh, soxna Maymuna ibda'i min qawlihi ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim الذي خلقني فهو يهدين بسم الله السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله

Samb ci njàng mu am solo moomu yàlla suñu borom barkeel soxna Maymuna ibda'i min qawlihi ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة بسم الله السلام عليكم ورحمة الله aleykum salaam wa rahmatullah macha allah jërëjëf soxna Maymunatu Mbakke. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. soxna Aïcha ibda'i min qawlihi taala ba'da a'uudu billahi min ash-shaytaani r-rajiim. bismillahi r-rahmaani r-rahiim.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 إلى من بعدكم soxna Aysatu Silla mën ngaa dellu sa place ñu woo Cheikh Abdoul Aziz Dieye asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu Cheikh Abdoul Aziz ibda min qawlihi taala baada audu billahi min alsheytaan alrajim بسم الله الرحمن الرحيم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله barakallahu fiik wa jazakallahu xayra jërëjëf Cheikh Abdoul Aziz Dieye asalaamualeykum wa rahmatullah waaleykum assalaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu Cheikh Mouhamed ibda min qawlihi taala baada audu billahi min alsheytaan arrajim bismillahi arrahmani arrahim يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن يَعْلَمُهَا sadaqallaahu al-aziim fii ngay taree xanaa nga soqi ñu bokk macha allah jërëjëf jooba jubba allah alxuraan neex na lool yàlla yàlla defal la tawfiq waaw moom dégg nañu papam dégg nañu Mouhamed daa tara bu neex fee papam tare bu neex a neex fii papam tare bu neex a neex la tari fii yéen ñi seen tar doomi tari tari yu neex fële force ngeen ñëw tarif yi bor la de da ngeen koy fay alxuraan ji ni mu neexee ba ñu tàmbalee ba léegi ëpp junni mennum sëñ bas laa fi amagun mennum sëñ bas ba ñu tàmbalee ba léegi alxuraan ju neex ji xanaa ñu tari ba jàll seeni waajur dañ fee ñëw dañ fee nekkul wala ñoo yónnee kër ga te ñu yónnee ak seeguñ ah alxuraan ji neex na de macha allah xam naa ñu continuer rek woo Pape Mayga Pape Mayga bismillah wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah eh, sëriñ Pape Mayga ibda min qawlihi taala baada audu billahi min alsheytaan alrajim bismillahi arrahmani arrahim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 لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعود ao barakallahu fiik jërëjëf Pape ga macha allah bu déwénee ñu euh, bëri ñu mokkal alquran lool ndax loolu bokk na ci li nga xam ne mooy ndamuy daara macha allah ñu woo soxna Ndey Faatu Mbakke di leen ndokkeel bu baax a baax ci riwaay bi ñuy jàng muy riwaayatu warsh muy riwaay bu jafe nga xam ne daara ji da koo tàmm di ko jàngale ci góor ñi ak jigéen ñi macha allah kon soxna Ndey Faatu Mbakke moom mooy ñëw noonu. ñu ngi dalalaat ñëpp di ñaanaat bu baax rek ñu gën a teewluwaat xale yi gën a teewluwaat njàng mi ndax kat kiy wax kii digloo mooy mbokkam te nit ñi ku leen woo danga leen wax mbaa nga jox leen ñun nag li ñu am mooy ay wax te li ñu am war koo joxe mooy li gën ci li ñu war a joxe muy alquranul karim ndey faatu abdul fadal bismillah soxna min qawlihi taala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 bismillahir rahmanir rahim yaa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 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمسون على الأرض يمشون على الأرض هونا هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين إذا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقيما استقروا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما حسبك صدق الله العظيم barakallahu fiik soxna Astou Niang Niang Ba ji topp ci góor ñi Mouhamed Khoule Mouhamed Khoule bismillah Cheikh Mouhamed ibda min qawlihi taala baad audu billahi min alsheytan alrajim bismillahi arrahmani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 يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم الذين آمنوا لا ترفعوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون حسبك بارك الله فيك jërëjëf jërëjëf Cheikh Mouhamed yàlla yàlla defal la tawfiix bu déwénee nga mbokk ñi mokkal alquranul karim ci topp Fallou Ndiaye Kane Fallou Ndiaye Kane bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu cheikh mahamadul fadil ibda min qawlihi taala bacda acuudu billahi min alsheytaan alrajim بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين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 وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراد منهما حسبك صدق الله العظيم جزاك الله خيرا Sëriñ Fallu Njaay gan sëriñ Fallou Ndiaye gan loolu moom dàkkante la maam jaara Ndiaye soxna maam jaara bismillah ñu ngi ziar bu baax soxna maam jaara ibda'i min qawlihi ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim فنبذناه بالعراء وهو سقيم بسم الله ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون soxna maam Jaar yëkkatil micro bi nga siggi tuuti xasbuk sadaqallahul azim barakallahu fiik wa jazakillahu xayra soxna maam jaara njaay sëriñ moodu juuf mu mag bismillah sëriñ moodu juuf kabir bismillah macha allah ñoom ñëpp di ay jàmbaar ci téere bi sëriñ moodu juuf wa aleykum assalaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sëriñ moodu ibda min qawlihi taala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 فإن من بعضكم بعضا فليؤد الذي تمن أمانة وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن barakallahu fiik jërëjëf sëriñ Mour Diouf Kabir ma ba lañoo continuer ak ñi nga xam ne ñoo des ci ñuy barkeelu ñu walbatiku suñu côté ndeyjoor jox sunu magum daara Cheikh Mouhamad Diop al imam Fadia moom mi nga xam ne kenn la ci mortala waaye kenn la ci parent d'élèves yi mu daalal ñu gën ñi incha allah